ñu ne demete bay mbir naa ñoo joom nday mbir naa yàqa nday naa te liggéey naa la di la vertu ni la taam lépp ni la mel ñu mujj jël xaaj bi côté bi ko joob ñu ko ngir di ko defar li booy ñoo doon defar ak tawaay ak man gaama no sumu waay mën naa lu koñ boo mujj dugg gaana même koñ ñi nga xamante yi nii sax gasoon ne ko commencé o xaaj nañu goudronné xaaj nañu goudronné xaaj nañu goudronné bàyyi benn xaaj mais Bamba Fall monsieur le maire mais yow yaa ne woon xaw ma état moom mooy gérer affaire de tali mais léegi yow léegi ministre nga ministre conseiller yaa ngi si état waaye côté bii nii sax tere la maintenant bi ci suuf rue yooyu yëpp gas nañ ko gars mën ko suuf waaye chaque jour gars yi seen oto moom engins yi ñu ngi dee gars la sumuwaay population bi gars ñu ngi feebar am naa biir yu ñëw gars man la sumuwaay yi. taal bi man nekk waa te tax. ba pare taal bi kattan ndayam salté nii comme ça damay ñàppoon ndayam saaga man damay saaga. yow yaa doon wax ni gars lii la léegi yow yaa ngi si musul mel nii gars maintenant boo yàgg xam bàyyi kon yëpp gars man la sumuwaay un ba quarante cinq la gars li man nekk waa te yàlla tax bàyyi man la sumuwaay yi da nga xool Milan nii la mel ñoom ñoo kattan bi liggéey te duñu defar mais lii amul saas mais lii lii lii lii dëkk ay foos la ay puub la ay day la dëkk temps bi lépp ay foos ay puub ay day ay tiwo yàqan day temps bi par nangu ñu defar déw dana woote ba sonn dame xama onaa la dame onas dana woote ba sonn sonu baay ndox amul nga am nawet bii baay jaara tax yërmande gaan yërmande nawet baa ngi ñëw ah noonu la demee parce que maintenant sonn nañ jaxle nañ jaay nañ bàyyi dos ran muy gën gaaw tuy ñebe tuy deme ñoo deme de bay min naa ñoo jom nday min naa nday min naa te liggéenu lëfal ndayam lii la vérité nii la demee temps lépp mel ñoo mujj jël suñu xaaj di cotiser di ko joob ñoo koy mujj di ko defar li booy ñoo ko defar ak sawaay ak man yëpp gaamal la sumu waay maintenant bi koñ boo mun si dugg gaana même koñ yi nga xamante yi nii sax desoon nañ ko commencé ko goudronné xaaj nañu goudronné li eh, suñu xaaj nañu goudronné xaaj nañu goudronné bàyyi benn xaaj mais Bamba Fall monsieur le maire mais yow yaa ne woon xaw ma a moom mooy gérer affaire tali yi mais léegi yow si état léegi ministre nga ministre conseillère yaa ngi si état waaye côté bii nii sax tere na naa bi ci suuf rue 22 booy alaya yooyu yëpp gas ko gaa man la sumuwaay chaque jour gars yi seen oto yaa ngi yàqu wala bokk borom anciens yi ñu ngi dee gaa man la sumuwaay population bi gaa ñu ngi feebar ak nawet bii i ñëw gaa man la sumuwaay ji waaw yërmande quoi te yàlla tax ba pare temps bi kattan ndayam salte nii comme ça saaga mais wuy ma damay ñàppan ndayam man man damay saaga eh, yow yaa doon wax yow yaa ngi si état lan ngeen di xaar gaamal la sumu waay pour Baye maintenant musul mel nii gaan maintenant ku ko yàgg xam Baye kon yëpp gaamal la sumu waay un ba quarante cinq tali la gaan yërmande ko waat yàlla tax Baye man la sumu waay yi damay xoole mbir naa nii la mel ñoom ñoo kattanday tali bi yëpp yàqataan bi liggéey sa duñu defar mais lii amul sens mais xoolal lii lii lii dëkk lépp ay foos la ay puub la ay day la dëkk temps bi lépp ay foos ay puub ay day ay tiwo yàq ndey temps bi pare defar dégg dana woote ba sonn damay xaw ma la xaw ma onaas danoo woote ba sonn sonn baay ndox amu fi ak nawet bii di ñëw baay te yàlla tax yërmande gaan yërmande nawet baa ngi ñëw ah, la demee parce que nu maintenant sonn nañ jaxle nañ jaayi nañ bàyyi tous rang muy gën a gaaw tuy